mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol yaa xafaara zunub Cheikh Sidil Maxtaar ngir mu jottulil nu nuyoo bi waaye juram di El Hadji Maam Cerno moom yaa xafaara zunub ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu sëriñ Cheikh Awa Balla gépp am mbégte lool nag ci teew fii ci barab bi nga xamante ni barab bu sell la di barabu yaxafara zunub sëriñ Cheikh Awa Balla mbokk mi doon jàng wolofal bi maa ngi dégg muy wax ajug sëriñ Cheikh Awa Balla maa ngi benn article boo xamante ni journal bi ko defoon c'était en 1952 Serigne Cheikh Awa Balla ci boppam mooy nettali avion bi leen doon indi jafe-jafe yi mu amoon ñu ànd mu ànd ko dal ba avion bi dal Prochène Prochène moom la ñuy wax Nouadhibou léegi ak les journa euh, les mécaniciens français yi leen fa fekk. nga xamante ni ñoo nekk ci avion ba ba avion ba baax ba ñu ñëw ndakaaru interview bu gudd boo xamante ni biñ ko teeroo kër sëriñ bi nekk crédit foncier fa la doon defee interview boobu di nettali yoon wa ak na mu demee waaye am mbégte teew ci suuf si nga xamante ni suuf su barkeel la lu tax keroog ñaanul sëñ Abbas rek ñu ngi may nettali taalibeeb sëriñ Cheikh Awa Balla bopp soxnaam dafa tawatoon mu ni ko maa ngi ñëw dem daarul Manaan ngir sëñ Cheikh Awa Balla ñaanal la bi mu ñëwee fekk sëriñ bi dem Ndakaaru mu ni sama soxna seema tàggu ni ko doy damay dem sëñ Cheikh Awa Balla ñaanal la duma tas yaakaaram dal di tibb ci suuf si nu nekk muy suufu Darul Manaan ba mu eggee nii soxna sa sëñ Cheikh Awa Balla nuyu na la suuf sii day la ma jox dal di koy def cim ndox jox soxna sa soxna sa ni ñokket ba mu ko naanee bi axafaara zunub bàyyi ko ndakaaru ba ñëw daarul manaan ba mu gisee waateeg taalibe boobee daf ko nii loolu yi nga def ca suuf sa dey bul ko defati ndax fa sa pas-pas toll ci man moo tax loolee te nit mën na koo dégg def noonee nga def te du am la nga ca am kon suuf a ngi nii soo xamante ni bii su ma ne suuf su tedd la foofii laa koy teg am mbégte loolu itam ci ngontum mbokkum Serigne Cheikh Awa Balla muy ngontum soxna Fat Issa Diop dinaa ci ñëw ci biir waxtaan wi kon danuy sant rek mbokk yi nga xamante ni bii ñoo ko saytu ba ci sëriñ Ousmane moom sëriñ Fallou Assé Dieye mi nga xamante ni moo ko sàkku ci man xam ngeen ni tey mooy bis bi sëriñ Cheikh Khady wàccoon ab liggéey ñu di ko rendre hommage ca rajo ba waaye biñ ma ko waxee dama ni rek awma sañ-sañu ñu wooma ci borom daarul mooti wooma ci soxna Faat Isa Diop rawatina ñu woome ko ci pàkkub yaa xafara zunub may am dara lu may def damay dal di dem rek kon li ma waxoon keroog ci darul moxti rek mooy soxna Fat Isa Diop bari na lu ñu xam ci moom ci digganteem ak li ko Sëriñ Tuuba defal waaye dafay baax lool ñu yokk gëstu bi ngir mën a xam jëmm jooje féeru Ceyeen Jolof mooy kan keroog ci ngontum waa garage waxoon naa leen ni waaye juru soxna Fatou Issa Diop bi waral lépp di sëriñ kokki njaga Issa daf doon njàmbaar goo xamante ni bii ci moom la boroom Daaru Muhti doon ne njàmbaaram gii mu yor ndax borom daarul mooti moo noon ca jaamu yàlla ga waaye jàmbaar la woon jooj kenn du ko yeb sëriñ Koki Njaga Ise itam yi la meloon njabootu sëriñ Maxtaar Ndumbe Jóob nañu ne woon ci alxuraan noonu la ñu mane woon ci xare yi ndax bi nga xamante ni bii dameel Amari Ngoone Ndeela falu na ci atum 1790 te jóg jëm ci sëriñ si faat amalamin Sarr ca caareen jama sëriñu njaamur si dañoo daje wut seenu xare njabootu sëriñ kokki njaga isa ñoo ko jiite woon muy sëriñ ahmadou jë rakkam sëriñ ngura jë ak sëriñ balla faaxuja xare boobee waaye juru soxna Fatou Issa Diop di Serigne Kokki Njaga Issa boobu mi ngi tollu ci ñaar fukki at ndax moom mi ngi feeñ ci atu 1770 moom moo ànd ak waajuram yooyu ci xare yooyu nga xamante ni xare nañu xare bu ñuy wax xare Paalo ak xare Caxriw nekk ci wetu Pire xeex nañu ba dem Ndakaaru ginnaaw bi itam mu wéeg ñoom juróom-benni at yi demeel toog yëpp ba ci 1796 ci la ñu xeex xeex bu mujj ba muy la bataille de Bongoy boobu nga xamante ni euh, kenn ci njabootu sëriñ Kokki Njaga isa bind na ab leetar almaami Abdou Khader Kan ngir mu ñëw jàppale leen ci xeex ba leetar ba mu ngi nii ak man Serigne Balla Faxu Jë moo ko ko bind yàlla dogal na ba ñu xeexee te dameel bom leen itam ba almaami Abdou Khader Kane di dellu Fuuta dañoo ànd ak moom ba ñu demee sëriñ faaxu jë mi waajuru sëriñ Kokki Njaga Issa ak rakkam sëriñ Ngura jë ci lañu leen kar faat leen ñu nga tëdd ca fa ñuy wax loofe sëriñ Balla Fakhuja sëriñ Balla Fakhuja mi bindoon leetar bi doon sàkku ci almaami Abdul Xaadir Kan mu ñëw jàppale leen moom ca xare bongoy boobee fa la des bi nga xamante ni dem nañu ba 1776 euh, euh, safurla maanaam révolution bi nga xamante ni almaami Abdu Abdu Xaadir Kan moo ko woote woon doon xeex jihaad ba ñu demee sëriñ kokki njaga isa moom dafa des bi nga xamante ni bii fexeel nañ ko li tubaab di wax coup dafa wax sëriñ kokki njaga isa ni ko yow kaay dellu ndax bëgguma li ñu may fexeel yow ñu boole la ca mu daal di fay bàyyi ko daal ñëw ci kër maamam sëriñ Mandumbe Jóob mi nga xamante ni mook sëñ euh, Maxtaar Ndumbe ñoo bokk sëñ Ayib Diop ak soxna Dumbe Seck ci curuur mu nekk fa ak ma Dumbe xëri jaxate mi nga xamante ni bi sëriñ Masamba Faxuja mi taawu sëriñ Maxtaar Ndumbe mooy waajuram ñu nekk ci wetu seen maam mën Ndumbe ba mu ni leen nag sañc ay dëkk dafa jot ci yéen kenn ku nekk mu laaj la bi mu laajee sëñ ma numbe xëri jaxate jóob mu ni ko man dey fee sama baay tëdd di sëriñ ma sàmba faa xuja mi nga xamante ni moo sañ ci déqale gii man de toolam yooye foofee fa laa bëggoon sañ ci ab dëkk mu laaj sëriñ kokki njaga isa mu ni ko man de sama dëkku maam bee di kokki moom laa bëgg a yeesali waaye yow sama maam Mandumbe dama bëgg nga jox ma sa fetal gii yow sëñ Mandumbe nga jox ma sa fas wi ci noonu lañu ñu ànd ak moom mu ñëw sañcaat kokki gi nga xamante ni maamam sëñ Maxtaar Ndumbe moo ko sañcoon waaye dafa gentoon keroog taxawal na fa téeméeri buntu kër ak fukk ak ñeent tolloo ak saari alxuraan yi dal toog nag doon jàmbaar joo xamante ni bii dëkkam boobu mu yeesalaat di kokki tàmbali naa xumb mu daldi samp kër ñii mooy ñi nga xamante ni bi waaye juru soxna Faat Isa Jóob di sëriñ kokki njaga isa dëkkoon na muy soxna xarjata mayib soxna xarjata mayib am naag sëriñ kokki njaga isa ñaar muy soxna faaloo xarjata ak sëriñ ndumbe xarjata mu teg ci soxna suñuy wax soxna ndaag kan ni kodd loo ba kodd ball loo am ca benn bu jigéen bu ñuy wax Issa Dieye Diop mi nga xamante ni bii dammeel mi nga xamante ni mooy way juru Ngoné Latyr di may sa tend joor dëkkoo woon na soxna sii di soxna Issa Dieye mu teg ca soxna Fat Dame Koddu euh, mu teg ca soxna faddaam geewul ba mu taawloo fa ngura faddaam maxtaar faddaam ak astu ball faddaam mu dellu dëkkoo soxna mbaaruk borom daarul moxti daf ko donnu li nga xamante ni borom pàkk bi moom it dafa donn njàmbaaruk borom daarul moxti kon sëriñ Kokki xeex na walla am lente na ak ñaari dameel Birima ma Cubb ak Maysa Tend Joor gàddaayam gu mujj nag ci la dem njum ca Fuuta foofee fa la tëdd tey barabam ba wax nañu ni guerre yi fi daan am yépp soldaar si bu ñu daan dem dañuy tibb ca suuf sax ngir bëgg a dellu si kii di soxna Fatou Issa Diop nag bi nga xamante ni sunuy nopp sëñ Mor Anta Sali waaj na ngir dem kokki ngir sàkku ji fa ab delloo am na soxna suñ doon wax Fatimata Diop moo ko taxoon a jóg waaye ba mu demee dafa fekk ñu joxe soxna sa mu daldi waaj fekk ba muy dem dafa jàng lu junni bi yaasin ba mu waajee ba di kon ndagam ki ko taxoon a jóg joxe nañu ko day dellu mbàkke fekk na am na maamam euh, astafurla am na ab jigéenam bopp mu ngi ci ëttub sëriñ Kokki Njaga Isa waxoon naa leen ko léegi muy soxna ab sa Mbakke Lawbe Touré di maami Fallou ture mii moom sëriñ Omar Touré ndax soxna ab sa Mbakke ñett ñi ma leen waxoon soxna Aminta Njaga soxna Faati Isa ak soxna Dumbe Xëri gannaaw bi sëriñ Kokki Njaga Isa làqoo ci la dem Màkka Touré foofee fa amee Ibra Asta mi waajuru sëñ Omar Touré mi waajuru Fallou Touré mi kon soxna Absa Mbàkke bañ ko xamalee ni sëñ bi day dellu mu ni kon sama ndoom si day tuut tànk la waaye dama bëgg ñu jox ko ko ba ñu waxee ba juboo ci ay kàddu ku ñuy jox ab ndoo la nga cay def ci alal fekk na sëriñ kokki fekkoon na sëñ Mor Anta Sali waajaloon xaalisum ngurdu defoon ko ci saaku joxoon ko bëkk néegam ndege ba ñuy toll njaañu njaga saaku sa dafa wadd jiite gisuñu ko soxna ab sa Mbàkke moo dem jël ci alalam woo sëñ Mor Anta ba ñu wéet mu jox ko xaalis ba ni ko jox ko waa kokki te rikk bu ñu xam ni ci man la jóge xaalis bi daal li ma ciy sàkku rek mooy ëllëg sama ndoom si sunu borom may ko njaboot gu barkeel jamono jooju nag waa kokki ñoo gënoon a jekk waa Mbàkke soxna si bi muy ñëw ci ëttub sëñ Mor Anta Sali dañ koo waajal jox ko ay lar muy ay jaam ak jur wurus ak ay rabbkat yi daan rabb malaani tëndën yi waaye bi mu ñëwee loola lépp la ko delloowaat nijaayam di sëriñ Mor Anta Sëli ñam fa nekk looloon itam muy soxna Anta Ndiaye Mbàkke soxna Jaaratullah ba bi ñu demee ca Maba Jaxu Ba daje fa ak Lat Joor jox ko ab jigéenam di soxna Coro Mansour Marosa Diop mi waajuru sëriñ Cheikh Coro ak sëriñ Balla Coro sëriñ Moussa di wax ni ca mooma at la Bamba ak maam Thierno ak ma Massamba Diop di dox ba wër nu nañ Kajoor wër nañ Bawol ak Njaamur ngir bëgg am ñetti dërëm bay jaamur ngir booba naar buñ naa Chériful Hasanu moo ko bindal ay téere bor la ca yenu téere bu tudd nañu Fathul Aqfal ak Rawdu Faa'iqan li maa la ca jalal ànd nañoo ak Massamba Diop ba dem saam amuñu lu fukki xasab booleeg mbaam kon nuy fàttali ñetti dërëm yooyee soxna Faat Isa Diop joxoon sëriñ Touba ku ñëw ceyeen ca barab ba fexeel ba bu ma nee ëpp ñetti dërëm mu ëpp ko waaye bu mu ko yées ñu barkeeloo ko ca ñetti dërëm yi soxna sa ba loola wee mooy soxla si sëriñ bi njëkk am en 1878 sëriñ Mbacke Anta doon taawu sëriñ Mor Anta Sali wàcc ab liggéey dendandoo ba mu yoroon di soxna Jature ñu wax ni dañ koy jox ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba waaye booba jamono naqari na moo tax sëriñ Mor Anta Sali dafa jël kaamil boo xamante ni sëriñ Touba moo ko ko bindaloon ni ko àndal ak Thierno ngeen dem jaay kaamil bi ndax bu jaree ñu am lu ñu jox soxna si jaay nañu jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Cheikh Bamba kenn xamul ko kaamil boobee ba mu jarut ba ñu dellusee see soxna sa feeru Thiel soxna Fatou Issa Diop moo jox sëriñ bi ñetti wopp ñetti wopp wopp ab xaalis la woon ñu boole ko ak lam ya nga xamante ni soxna jee moo ko joxoon sëriñ bi ak ay sor ba ñu demee ba njanjaar ñu jox ko bokki soxna si en 1880 sëñ Mor Anta Sali ñëw sañ ci Mbàkke Kajoor gii yàggu fa daal di wàcc ab liggéey moo tax soxna Fatou Issa Diop li mu am daf ko liggéey kere ba ñuy miraas sëñ Mor Anta te sëriñ Tuubaa ni li fi sama waajur bàyyi na moo ci sama wàll li fi sunu waajur bàyyi maa ci wàllu cerno du ma donn cerno du donn li nu waroon a am ci ndono li delloowaat leen ko ci biir miraas mi ba ñu miraasee ba noppi soxna Faat Isa Jóob dafa jël ab cërëm ak cërub sëriñ Daam Ahmadou Faati cërub soxna Aminta Mbakke ak cërub soxna Faati Bintu maa ngi fàttali ko maa ngi fàttali barki Dembo rek ni ñu bari dañoo jàpp ni Serigne Dame Ahmadou Fati magis boroom daarul Mouhty la waaye Serigne Dame Ahmadou Fati rakki boroom Darou Mouhty la ndax bi sëñ bi demee ci tukki bi ca déwén sa sëñ ma daaw balla feeñee fële ca Mbakke Bawol foofee fa la wàcc ab liggéey booba matagul woon samp kër kon sëñ Dame Ahmadou Fati rakki borom Darou Mouhty la soxna si jël. lam amoon ca ndono ba jox ko sëriñ Touba moo tax damay wax ni Serigne Touba mi nga xamante ni ku ñëw fi moom mu duyal la sa ndab ba mu fees neex naa jóg jëm ci moom waaye soxna Faat Isa Diop ba muy jël alalam di ko investir li tubaab di wax investir ci Serigne bi booba Serigne Touba mooma wuute naag Serigne Touba mi nga xamante ni ku ñëw mu defar la. kon soxna si dafa defal Serigne Touba lu ko kenn defalu te loola ma nga door ca Saloum ndax xam ngeen ni sëriñ bi bi mu feeñee ñetti weer rek lañ ca teg waajuram bàyyi ko Mbàkke dem Njaakaan nijaayam sañcal ko ca xurwa ñu di ko woyee xuru Mbàkke def na fa fukki at ci weeru juin 1865 la ko tafsir ma ba jaxu ba yóbbu Saloum jóge ba ñëw Pataar maanaam euh, soxna jaara bi muy wàcc ab liggéey booba sëriñ bi fukki at la am dénkoon na soxna Fati sa sëriñ bi ndax poroxaan juróom benni weer rek la fa soxna jaara def tukki bi nga xamante ni jóge nañu xuru Mbàkke di tànku ba dem Saalum li yóbbu soxna sa ci yoon ci tukki boobu la ko jële waaye dénkoon na soxna Faat Isa sëriñ bi fekkoon na it soxna Faat Isa sunu borom baaxe ko ca ba ñu nekkee xuru mbàkkee te baaj ba baag ba tàbbi ca teen ba ak la ca xew ba sëriñ bi génneel leen ko bi ñu ñëwee paataar itam te daara ji bari ay dong mu xat lool te xam ngeen di daara ngir la dong yi daan def bu ñu tegee ndab li te sëriñ ti waa moom lu ko lool di may du ko am soxna si dafa am ay xéewal yu mu ko daan waajal bu sëriñ bi génnee dem ci àll bi mu topp ko bu ñëwee ba jege ko bu yëgloo mu ni ko ana kooku mu ni ko mana mu doon ko mu ni ko lu doon say tànk mu ni ko wax dama gis ni daara ji dey dafa xat dafa bari mbooloo moo tax ma waajaloon lii rek ni naa la ko indil ngir saa bu la soobee rek nga man cee jëfandiku moo tax sëriñ Touba ni borom daarul mawti yàkku la yaakaar lu ngeen gis ci àddina ak lu mu neex neex neex sëriñ bi nag ma ma tënk rek lan la ko jural sëriñ Touba ñimewul bor dafa am pay njabootuk sëriñ Touba soxna Faat Jóob Mbàkke soxna Njóoba moom lañu xam ci ku sëriñ Touba tuddee koo naan bàjjanam a nga ne soxna jóob Mbakke mi bokk ak soxna Musli ak Cheikh Mahmadul Mourtada soxna Fat Isa Diop la ko Serigne tuubaa tuddee loolu mel ni moom dong moo ko am soxna Fat Isa Diop mel ni moom la sëriñ Touba nungu ci këram gu mujj muy li tubaab yi bàmmeel loolu rek dafa doyoon sëkk te keroog sëriñ bi nee na su fekkoonte ni. amoon naa waajuru jigéen day tey jii laa koy doog a ñàkk ndax sëriñ bi li mu def ak soxna Faat Isa Diop defu koog soxna jaara waajuram ndax fukki at rek la def ak moom te moom ba mu matee dal dañ koo jox maamam tafsir mbakke Ndumbe ci moom la nekk ba bi muy wàcc ab liggéey sëriñ baa ngi toll ci isi bu la taji daan na mu doog faa jóge dem ci nijaayam sëriñ bu soobe kon soxna Faty sa Diop dafa am ci sëriñ Touba loo xamante ni kenn kenn amu ko euh, ndax bi nga xamante ni bii sëriñ bi sanc na Touba en 1895 te laajoon soxna si lu mu bëgg mu ni ko bàmmeel laa ragal boobee la ko ko digoon moo tax bi nga xamante ni bii sëriñ bi dem na ci géej gi te sunu jàmbaar ji féeru ci pencum boppam di Birahim Fati Isa Diop yor njabootu sëriñ bi wet gu nekk ñu jaar ko fa ngir bëgg a tasaare njaboot waaye mu mel ni ëkk rek am na yetti at yooyu dañuy tëdd ba guddi ñu ñëw taal kër gi ci seen kaw ñu génn kër gi tàkk di tàkk tàkk ba jeex bu ñu xëyee sëñ Ahmadou Ndoumbé Xaban àndaat ak dongo yi dem gori am ngeer ñu ñëw lakkaat ko lakkub dóor dóor mooy li ñuy wax mur léegi takkaat néeg yi yetti at sëñ Moussa Ka nga wax ne ku weddi laa jël soxna Faati Silla muy waajuru soxna Moominatu bintul Xadim ku weddi laa jël soxna Faati Silla moo teewe démb teewe tey am ful am na ca kër ga yetti at di lakkaat at mu taxaw mu lakk cerno lakkaat bu ñu jéemee jéem xamuñu nu ñuy def ñu ni léegi nañu bindub leetar xam le ni tubaab yi ñoo ko bind ni sëriñ bi nekkatul cerno na tasaare njabootuk sëriñ Touba loolee bañ koy jéem sottiwul fenn fu nañu jaar ko fa waaye mu way deng rek yor njaboot gi ba ci le 26 août euh, le 26 janvier 1903 ba sëriñ Touba bàyyi ko Daaru Salaam ñëw fekk ko ci pakk bi nga yi moo ko joxoon digal ngir mu sanc ko muy daarul manaan gi nekk diggante tuubaak ak Mbakke Cheikh Abdoul Khoudous moo nuy nettali seenub gise nee na keroog boroom daaru bi muy jox bagaas yi sëriñ bi nee na desiti suukar ak desiti warga yi fi sëriñ bi bàyyi woon noonee la ko génnee xalima yi mu sampoon ci daaj ji lépp dara nee na sëriñ bi jekk bi ak mu ni ko man de Thierno damaa xamul lii ak maandu la wala da nga am ci loo jàpp ndax sëñ Touba bu tukkee bàyyi fii war nga ak suukar borom daaru muti war na koo mën a jëfandikoo. di ko xool ba yàgg mu ni ko waaw Thierno ndax bu fekkoon yaa dem ma des fi loolu la ñuy bañ a dégg waaye loolu ma ne yomb naa dégg borom daaru bu ko mënee sëriñ Touba tax. loolu aw tagg la ak won ko ni ko li nga def kawe na ndax ki tax nga man ko war na ko man waaye bëgg a jëfi borom daaru mooti moo tax mu ni ko ndax ceerno su ma demoon nga des fi dinaa ko mane nii nga ko mane ndax sëriñ Touba ñëwu fi woon ngir sañc ay dëkk ñëwu fi woon ngir wut ay tool ñëw fi woon wut ngir wut ay dendandoo lenn lu ca nekk dafa tànn ki ko doy mu ni kii mooy sama loxob ndeyjoor moom laa féetale foofu ndax ba ba mu demee gànnaar te naar ya gàkk dégg nga sëñ Moussa Ka keroog la maam Thierno gàgganti naar ya tasaare max naa te laalul mool ya ndax daf ni ku weddi laa jël naari waa daymaan ya seen ngag ba jàkkoon ba jàlloon jukk ñëw soodaani bamba di maam Cerno na leen gàgganti man bamba biis penc ba lay lijjanti addina ji moom borom daaru muuti moo ko yoroon dafay baax lool nag ñu di ko fàttali ndax mag ñi jébbaloon fii ci Mbàkke Kajoor kere bi sëriñ bi sañcee Touba Cheikh Mahamadul Amin feeñ kere la leen sëriñ bi yewi ba mu leen yewee daf ni borom daaru yow duma la yewi nga dem waaye bis ñu ngi tey sant naa la gërëm naa la loo xamante ni xarab dootu ca topp dama bëgg nga wut sa kërug bopp di xëyal sa bopp di gontal sa bopp borom daaru muuti ni ko yaa ma njëkkoon a xëy te wàccoo man kay li ma doon doy man li ma doon doy mooy ma fetalal la jihaad keroog la ko Sëriñ Tuubaa wax waxam ju rëy ja ndax temps waaw ñu may di ñu daaneel rek keroog la Serigne Touba wax borom daarul mooti may naa la ngay dund ba waxtu wala soob deesu la seet si doo fi la soob moo tax borom daarul mooti dund na juróom-ñett fukki at bopp mësu koo metti kon ngir gàttal fu ñu doon toog di wax ba fajar itam du jeex waaye dama bëgg rek nit ki li mu am daf koy fonk sëriñ Fallou Asta Dieye yàlla nañu ko sunu borom fayal mënoon nan fee nekk ba jóge fi te duñu xam ceen duñu xam barab boobu soxna si ndax soxna si jóge na fi ñu teg ci juróom fukki at ak juróom ñett te kenn borom daaru muuti demul ci kon sunu teen bu gàtt bii neexum ndox seddale ko lool te nekkoon ci dédd sëriñ Fallou Asta Dieye ko law moo jël xepp wala ngaju di ko alli di ko alli ba teen baa nga ne tey boo demee da ngay sëgg rek dëtëm kon sëriñ Fallou Asta Dieye yàlla na ko sunu borom fayal te waxuma la waa kër borom daaru waaye murit bu nekk war ngaa dem Thiène Jolof ndax la fa Serigne tubaa def lam fa def defu ko fenn la fa nekk ci jeexiti sëriñ Touba it nekkul fenn kon dañuy sant El Hadji Maam Thierno xalifa bi yaa xafaaru zunub Cheikh Sidil Makhtar ndax li Bamé Dieng doon wax léegi su fekkoonte ni kër borom kër borom daaru Muti gu nekk am nga kër gu toll ni goog Serigne Fallou Assigey wala goog El Hadji Maam Thierno ca Thiène kon jéyeen fees del doonaatuk daarul muuti ndax boo demee kër ga mu fa def mu jàkkaarloo ak pénc ma su fekkoon te ni kenn ku nekk def nga ko kon ceyeen dana feesaat dell ak daarul muuti kon yéen soxna yi nga xamante ni yéen moom ceyeen sëñ Fallou Seye daf ko daan wax ni jigéen ñi ñoo man góor ñi ci ceyeen jolof kon ñu ngi dellu di leen ñaax seen taxawaay ci ceen jolof te nag bu ñuy waxtaanee soxna si bu ñu daanu di yuuxu waaye dañoo war a jéem a xool ay jikkoom ñu roy ci yéen moom benn rekk ngeen di roy ci moom mu doy sëkk mooy ki nga bokkal boroom kër ngeen bokk ab ëtt soxna Fat Issa Diop soxna Anna Jaay Mbàkke ak ñoom ñëpp dañoo bokk ak soxna Jaara suñu boroom may ko lu mayul kenn ñu nungul ko ko xiirtal ci seeni njaboot ngir ñu topp Serigne tuuba jamono jii nag ku fi sunu borom mayoon doom ju baax nga nekk ak li wolof di woote ay wujj sa doom tegu ci siraatal mustaqim ñoom seeni doom di agressé que nungu portaabali jàmbur dañ naan moom mii moo liggéey sunu doom lii sunu doom ji nekk teyu ko moom mii moo ko ko teg kon yéen ñi bokk borom kër roy leen ci soxna Anta Ndiaye Mbakke ak soxna Fatou Issa Diop nañu nekke woon ak soxna jaara kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal El Hadji Maam Thierno sunu borom yàggal ko fi te wëral ko waaye di ñaanal jàmbari ceen ja Sëriñ Fallu Asta Jeey yal na ko maamam teeru yàlla na dëkk ak Serigne Touba soxna Fatou Issa Diop borom Daaru Muuti ak Cheikh Mamadou Haw Balla wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.